Salut, chers membres, abonnés, continuez-vous davantage à abonner sur BFB officiel. Taille les producteurs du groupe BFB officiel ñu ñëwaat àndaat ak yéen comme nous avons ko de di defee ci lañu naan questions et réponses. tey question bi ñu fi jot nekk nan ngay def ba utiliser wu signal ak signal mo nek ban application ak signal nan ngay def ba télécharger ko ak dinañ leen wan quelques informations nécessaires à savoir sur signal astuce bu gatt lañ leen di defal ndax dañu bañ mu gudd waaye dinañ leen expliquer quelques informations concernant signal signal kan moko fondé ak signal kañ la génn ak signal sécurisé bi ba xam signal gratuit la oui wala non lépp dañ leen ko wax et que pour comprendre la vidéo bi dañ on va vous donner quelques informations concernant cette application c'est-à-dire Signal Signal nous avons développé mi Signal Fondation Signal Fondation nous avons développé l'application ñu application bi Signal. Nous Signal une première version mi le 24 juillet 2014 C'est la première version de la mais cette dernière version bi nga xam ci ni mom lañ Android mi ngi le 30 juin 2020 le 30 juin 2020 mom lañ mujjé def ay ay changement ci application qui ñu naan signal ci Android mais si vous ci ñom iPhone ñom iPhone ñom mi ngi le 3 juillet 2020 ñom mom lañ def ay changement mais pour un ci ordinateur personnel c'est-à-dire ordinateur personnel ñom ñing fa mujjé def le 20 janvier 2021 c'est-à-dire que jall cassé lañ mujjé def ay changement ci application bi ñu naan Signal bo xolé bax assurance c'est-à-dire une qualité ñu ñiko gérer mo nek interrogation continue sen un environnement c'est-à-dire ñi nga xam ci ni application bi mom la disponible application bi disponible na ci Android c'est-à-dire ay téléphone Samsung Huawei et cetera ak wàllu iPhone dispo disponible na ak iPhone li ñu naan ISO ak Linux Linux tamit disponible na fa ak MacOS Microsoft Windows foofu lépp disponible na fa cest à la mooy Microsoft Windows moo nekk. li dem ci ordinateur loolu gars bëri ko mais application bi am 31 langues différentes c'est-à-dire 31 langues différentes yëpp am na fa am na ci application bi c'est-à-dire yaa xam français lépp loo bëgg rek am na fa ba mat ci 31 langues 31 langues sont disponibles disponible l'application. ci application bi type da bi yenn xeetu type application la am am application mobile boo xam ci ni moo nekk yuy dox ci téléphone c'est-à-dire application mobile ñëpp xam nañ ko am na logiciel de cryptographie boobu tamit am na ci am na ci mais buñ génnee ci loolu dañ leen di wax signal signal benn application boo xam ci ni gratuit la gratuit la ci Android ak iPhone yaa ma gën a xam application bi lan la lay permettre da lay permettre ngay waxtaan di envoyer ay messages c'est-à-dire di communiquer appel vocaux et messages messagerie texto ou média lépp am na ci de façon, de façon chiffrée et sécurisée dans l'objectif d'assurer un maximum de confidentialité à ses utilisateurs Nous avons un objectif pour xam assurer cette façon de son maximum c'est-à-dire kenn du mën a pirater seen données Nous avons développé l'entreprise américaine qui a développé di application signal messager tay lolou la ñeen bëggoon indil quelques informations information yi bari na mais mënuñoo indi lépp dañu bañ vidéo bi gudd kon dañuy dem wan leen nan ngeen def ba télécharger signal bi yalla wanoon lañu leen ko mais du ñak ñoo xam ci ni sétanu sétanu ñu won vidéo bee kon dañuy dem wan leen nan ngay def ba télécharger ko kon nañu dem sur Play Store ou App Store da fay disponible après ngeen taper signal mi comme mi ngi nii après ngeen bës ouvrir ñun dañ ko téléchargé ba pare après yéen da koy téléchargé soo leen ko téléchargé ba pare après fii da ngay bës ouvrir. soo bësee ouvrir ba pare après fii da ngay bës poursuivre c'est-à-dire nga continuer après nga bës poursuivre ndax boo bësee pas maintenant tamit. dangay am ay conséquences ci kanam après fii da ngeen bës poursuivre pour ngeen régler ko dès maintenant fii da lay da lay autoriser dans la autoriser l' application Signal à accéder à vos contacts fii nag da nga koy autoriser force même boo ko autoriser wu tamit daaw ko laajaat ci kanam fii daal la ba xam bëgg nga application bii ñu naan Signal am accès ci say données c'est-à-dire say contacts da nga naan wii ndax ñoom dañoo sécuriser wu lool. après fii dañ la ba xam bëgg nga mu am accès ci gérer des appels téléphoniques. nga bës autorisé après fii nag da laaj sa numéro fii nag da ngay def sa vrai numéro ndax dalay lay envoyé benn code code de validation ndax boo ko defut normal du jàpp après fii am nga possibilité sensé dëkk bi nga dëkk mais loolu intéressé wuñ ndax day détecté dëkk bi nga dëkk automatiquement seen matériel yi da koy détecté automatiquement après fii ngeen def seen numéro de téléphone Après, vous, vous tapez sur suivre. après que que que ngaa vous avez la possibilité de modifier le numéro mais nous nous intéressé wuñu après dañu bës ok après vous avons un code de validation day ñëw automatiquement application bi dafa efficace lii moo tax mu neex ma comme gis ngeen signal après fii boo ñëwee sa compte da koy détecté automatiquement mi ngi nii suñu adresse jëmale mi ngi nekk nii yaa ma gën a xam après fii mu bind la nom de famille c'est-à-dire facultatif facultatif moo les mots qui ne sont pas utiles ça ne vaut pas l'appel de perdre votre temps après fi da ngay bës suivant important trop tellement important code quatre chiffres 4 chiffres ngay après yow code bi dang ko japp bu ci kanam la lay amal importance li dañ ci def benen vidéo bo xam ci ni dañ leen expliquer li limi jariñ mais code bi fekkee ngeen japp ko bu baakha baakha baakha baax na code bi da nga dem ba bëgg amaat accès ci sa profil say paramètres say contact lepp fekk fekkee da ko bëgg restaurer ou vous réinstaller signal vous n'aurez pas besoin de votre NIP Li force nga xam ko force nga xam sa code bi ndax bo dem ba supprimer ko pour nga amaat accès ci say contact sa lepp faaw nga defaat sa code bi code NIP e li lu am importance ñu expliquer lepp ndax vidéo bi day gudd mais li jàpp leen ko bu baax lii su fekk mënu leen ko japp bu leen tigi li ndax li c'est indispensable ça à dire mën ta ñak waaw kon ngeen def seen code après dañ leen gëna indil ay explication après ngeen def code après ngeen bus suivre après fii vous confirmez votre code après ngeen retaper suivre comme fii gis ngeen ñun tijji nañ signal ba paré tijji nañ signal ba paré après ñun dañuy xol kon contact yi di ñëw comme nan ngay def ba changer sa profil sa profil boo ko bëggee changer yomb na da ngay ñëw ba fii fii ngay ñëw boo pare nan ngay def da ngay ñëw ba fii mooy fii ñu defal la sa profil foofu ngay ñëw après comme fii da ngay bës mooy fii fii ñu defal la photo bi après nga ñëw ba fii ñu bind la yéex dans la gaxari foofu ngay bës après nga bësaat fi ñu la bindal autoriser après fi ngeen def sen profil après ngeen bës ok après ngeen bësaat ok comme gis ngeen sen profil changé wona après ngeen bës enregistrer comme gis ngeen lol la ngeen mais dañu bañ vidéo bi guddu motax amna am na astuce yu bari yu programmé won mais du fi xaj ndax vidéo bi day guddu kon te astuce dañu bari mais bi di ñew dañ leen defal astuce yu bari you am solo lool dañ lay ñaan nga suivre seen bii di BFB officiel et vous fàtte di partager une vidéo merci à la prochaine